waaw li ma ciy sandi lenn la Médina mooy Fass mooy Gueule mooy Fann mooy Colobane dama bëgg képp kuy doomu Médina képp kuy doomu Ndakaaru na nga jàppale Ada ci bësam bi mu am muy le 31 ñu ci woo autorités yi nag nañ jënd billet yi dooleel ko ñëw stade supporter ko ñu jël ay kaar yu bari yëpp ci gaa yëpp ñu dem supporter ko jàppale ko ci mbër bi parce que tamit nit boo koy jàppale da nga koy ci lu muy def moom champion la du ragal yàlla may na ko fit mën na bëre xam na li muy bëre ñun daal lañ lay conseillé mooy yokkal entraînement yi. di nelaw dóor daan yaa fi ne. dëgg la olof olof Ndiaye nee na bëgg yëgoo koy fay. donc yéen ñaara dama bëgg ngeen wax ma seen relation fraternelle lan lan la ko non non wax ji du bari wax ji du bari wax ji xamal la mooy 31 incha allah mu jël ndam li. ñu ñëw jubilé mais man maa ngi woowaat autorités yi di leen woowaat autorités yi nekk Médina Fass Gueule Tapée Fann Colobane na ñu jënd ci billet Ada Fass yi jàppale ko parce que doomu Médina la doomu Ndakaaru la doomu Fass la doomu Colobane la na ñëpp ñëw sotal ko maanaam mu jël ndam li parce que bu ndam li ñëwee rek sunu gox la waaw loolu duñ ko duñ nekk sax di wax ay waaw wax ju bari yàlla na ko yàlla may ndam champion la jaajëfati waaw. jaajëf Alé donc comme euh, comme euh, El Hadj ni ko waxee lan ngay jox li nga xamante ni ñooy sa fan si nekk Medina pour préparer ce combat le 31. waaw dina na gaa gën waaj rek. waaw Medina moom lii moom waaw du première deuxième chaque jour dañuy teew samay combat barki Serigne Saliou di wax leen teew la 31. ñu defaral waa ji élage concert ñu ñëw toj ko yëngal ko xam nañ lépp tawoon la incha allah si kattan suñu.